Sabululen, tabulen sukaliko yangu ya Sabululen Sabululen alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Téléspectateurs yi ñuy seetaan ci Bantamba TV ak internautes yi ñuy bàyyi xel ci Ken TV. fu waay mën a nekk rek fekk naa la fa tàllalati la samay yoxo di la ñaanal jàmm dellusiwaat naa ngir janoo ak doom yi borom bàmmeel bi kenn bëggul bu Cheikh Mouhamadinil Moustapha Sy Al Mourchid mu fas yéene waxtaan mu ñeel promotion bi nga xam ni tàmbali na ko ay bés yi nu génn mu fas ko yéene wéyal ba ci tabaski bi kenn bëggul bu Serigne Moustapha Sy li ko dalee ci consultation waxam à distance la wala rendez-vous privé wala consultation directe ken bugul bu serigne moustapha si foofee la tàmbalee woyafal gi ba ci ndabi cangat yi wala bépp garab bum la mëna jox waye serigne bi bala ma ci sori rek ma nuyu la ngeen yok askan wi lay sétane serigne bi ma ngi lay nuyu di la ziara di la ñaanal ba ci ko jamm ci katun suma borom jërëjëf masha allah sëriñ bi promotion yi dafa daan am une semaine wala quinze jours ñu gis ni bii dafa gudd lool ndax dafa am lu ci spécial am na sax ñuy wax ni sëriñ bi moom est-ce que du dafa doyal xaalis rek di def promotion noonu soxla naa ci daal ay leeral. waa xam nga àdduna moom moo toll foo xam ne lépp dañ ko war a partager te dama yàgg di wax ne man ku ma fekk ma xuloo teeg nit. man nga war a yedd waxiin la déggin la laaj ku ma fekkati ma am lu ma naqadi ci àdduna man nga war a yedd waxin la ci yan baas laa ko teg mooy ndaw maase na ak man jamono ndeyam ak baayam ñu ngi ko yor ba léegi ndaw maase na ak man jamono walla mag ma fuuf te sagari njaam yi ma yàlla sarax saraxu ko donc man bu ma yàlla may wér sarax ma ko sarax ma xam-xam sarax ma ay moyens yoo xam ne kenn du la wax ne ma ci dugal dërëmam pour jàppale ko ko kon dama jàpp ne bor la bu ma suma borom lebal malgré mënuma fay bor bi mais war naa chaque mois ma am lu ma ci dugal façon bi ma koy dugalee ne ku nekk ak sa méthode mais am na loo xam ne pour nit ki def ko faw mu wutu yàlla ci jaamam yi moo tax ma waxoon na ne le promotion bi ñaar moo ko ëmmoon ba ñett ba ñeent bi njëkk yàlla yëg cofeel bu yokk ci leeru Seydina Cheikh ñaar le 10 juin di dëtmal muy sama anniversaire de ruux sama xol te yàlla bi mu bind dekk laay seedeel sama cofeel ci moom mais du ko seedeel nit ndax pour man nit jarul defal seede yàlla na yëg rek sàmmi naa wa atax naa mooy waral baat bi may wax ne bu ma wéetee ci yéen wéetuma ci yàlla suma borom ndax laboratoire bi may nekk xam naa li ma yàlla day yëg lool waaye soreetut lépp ngi ñëw incha allah ñaareel ba mooy tombel ki gën a cher encore sama xol nga xam ne diiran bi ma dëddoo ba léegi samay rongañ ferul nga xam ne diiran bi ma dëddoo ba léegi ci wéetaay lay dund nga xam ne diiran bi ma dëddoo ba léegi ci tumurank lay dund waaye yëg bànneexu àdduna xaw ma jafe lool ndax ku sañan ku ne bu la yàlla di sarax sagari njaam ndey ak baay dañuy fekkee waxtu wi may jox gisatoo ndey gisatoo baay waaye yaay nag dafa seeroon ci man lool mu di yaay Fatima mu nekk koo xam ne ku diis ci man la te dafa daj coono gune ndax man yàgg nay wax mbondi faama dékku naa ay bale taxaw ndax yow ngondi faama dékku naa tawum satu mbar ba fajar xar ndax yow dékku naa taxana ci dégg bi taxana ci matt mi roote ci déeg yi ñëw tey cere yóbbu tool ya ndax yow ndax biroon na mën a yàlla ëllëg dana ma sarax koo xam ne même buma fekke fekkewul njariñam njariñam dana ma fekk sama bir bammel kon man wuruma def erreur ci ginnaawam même suma ma ba def ko damay reconnaître na def na erreur yaay jooju nag bokkaat tamit ci li tax ma def promotion bi bayil xel na suba la talata lay def juróomi at ci bammel malgré ko residence tudé ko waye lolou du bor limako li ci bor dafa bari trop te bor bi ëpp ci li ma ko yoreel war a fexe wuutu jaam yi ba lu war a ñëw ci sama compte mu nekk partaas bu jëlee fukk na jël man benn rek bu ma amee baax na ndax moom moo ko merito jigéen ju maandu jigéen ju musul tas mbokk musul nangu fu ñu séparé ay gor musul dëkku fu ñu yàqee deru gor ku ma mën a seedeel ne ma fàttaliku fu mu jëwee gor wala fu mu lekkee alalu gor mukk ci aduna diini rek ñakam kenn du xam amam kenn du xam musul xam wañu sutura motax yu bari parfois sa ñu laaj bu ne ma xana sàmm da nga xaw tawat fekk yalla xam tawatuma de mais datu anniversaire buy jup si day am lu bari luy ko ci man et puis c'est normal parce que mo tol non ci man du man dong la meñ mais dafa defan sacrifice yu bari ngir man tan lim wax ak man bari na kon nak mom bokku na ci li tax ma def promotion yeb bayiko ko mu jall mu def timit benn diire bu yàgg ndax musul def promotion bu def fukki fan ak juróom ak lu tek mais ñet yi dox ci digënté bi motax mom jar yaay fatima jambar la de lay ndaysan jambar tigi la wallaay yalla yàlla na ne jambar la barke muhammad ngi ñaan yalla na leeru Seydina Cheikh wallu ko yalla na leeru suñu mam Seydi Aji ci si wallu ko yalla na leeru suñu mam Cheikh Omar Fouti wallu ko yalla na leeru suñu mam Serigne babax ci wallu ko yalla na leeru suñu mam Seydina Cheikh Ahmad Tidiane Al Maktoum wallu ko waaye lepp ci barke Cheikh Seydi Mahamadou Moustapha sanni ma baagi ma doxal bu ngok kon nak yeen ñu ñuy sétane ci télévision Bantamba TV ak internet yi kenn bëggul bu Serigne Moustapha si mi ngi ci promotion bu am solo mom dal limu xam ak limu am deñul ci diko partager ak askan wi kon nak man ngeen wote ci numéro yoy ngeen di seen ndaw yi ngeen di jot dañu leen jox information yi ca war inshallah serigne bi gannaaw lolu dafa am ben ponk bu ma bëgg ñu waxtaan ci muy li ñuy wax cat wolof fay wax ni cat bu rayul semal ndax man nañu xam deug deug lan moy cat ak lan mo koy waral boo xam nga daa nga dégg jamono ca gannaaw ma lay wax na cat feebaru xale la mais waxin bu ne déggin lay laaj ndax lu mag ñi dem ba ne bu reyut semmal boo ko jàppee xale yaa ngi ci erreur yii ma lay wax nii yëpp nag cat moo leen di ngemb mais bàyyil xel na cat am na cheikh te muy bët bu aay ñi dégg bët bu aay na xuruuf bi dafa xaw a jafe ci ñoom pour ñu dégg ko bët bu aay ni làmmiñ aaye la bët di aayee ça n'a rien ak ngelaw bi nga xam ne dafay dugg nit ngelawu calaweer xam nga ko mais ñan ñoo koy sponsorisé mooy xafaar yi nga xam ne ay yéeféer lañ mooy jinne yi nga xam ne donc seen ngelaw doxul te ñoom loolu mooy seen mission kuy jour pour journée bu nekk ñaata jàmbaar lañ détruire journée bu ne ñaata gor lañ fàqat donc cat bokk na ci yi muy def ci gor bu dee wàllu wér gi yaram dina créer estomac boo gis cat mooy bànqaas bi tension boo gis muy yéeg di wàcc cat mi ngi ci bànqaas bi cancer bii di ne ci ween cat mooy bànqaas bi diabète limi ris ris ris ris ñu naan dañ koy donnante d'accord mu buñ ma laaje may ne argument yi indi leen xam-xam yu koy fajj ba mu dañ te nit dindi est ce que xam nga gën yi ñuy debbe ñuy debbe ñuy debbe ci wañ yi ak kuur yi moo gën gaaw ci sepp ci sepp kan ki nu tudati diabète jabe jeex tak na la wax ni gën yi ñuy debbe ci bir wañ la wax de gën bi ñu ba mu xar non moom na fett rek boo ci mënul fa jabet bàyyil mu dem day dañ ba jeex takk te amul jat amul dara façon bi nga koy fajee lu yomb la maanaam waxuma sax ci wàllu xam-xamu shariatu muhammadiya mais wàllu xam-xam muy gàncax yi ci jeex du dañ donc bokkaat na ci cat yi muy def ci wàllu wér yaram dina tax nit am métitu biir boo xam ne maanaam am na ñoo xam ne yàlla da gis seen métti biir du métti mais seen biir day wañaaru wañaaru cat da koy def feebar bi ñuy wax yuqeelu yuqeelu cat moo koy def da ciy bokk ñii am problème mu da gis bët boo xam ne day am parfois gàllankoor ci biir umu umu am per lu tuuru umu mu am fatt fatt ba leneen ñëw toxu ci mais cat bi moo koy créé mais kii kere cat bi nit boobu ban façon nit la d'abord comme ni comme ni animal yi amee nga ne par exemple tay ne ginaar ne naat ne jàmba jóob ne copine mais ñëpp ñaari tànk la ñam mais nit mi ñaari tànk la am seen xaydi seen tur yi noonu ñu wutee ñële ku nekk am nga li ngay faj kon yii la cat di def ci yaramu nit bu delloo ci wàllu nag activité bi mu doxal yi cat di ci def mooy fexe ba lépp loo sumb mu dugal ci yaakaar bu tas du sotti fexe ba tey sa biir activité lépp loo yor ci wërsëg mu tas ko mu dem mais façon tas yi bokkuñu fexe ba oto boo yem loo liggéey moom ci moom lay des donc yii dafay am fexe ba dëkkuwaay boo commencé tabax fa mu yem fa lay àgg mais du jógati mais naa la cat dong mënul def loolu faw mu ànd ak bët ndax ñoom ñaar duñ tàqalikoo day mel ni jëmm ak takk leer ci yaramu nit moo tax bu yëre tilimee bul fóot bu bu bàyyi tubéy te mooy ci biir yaramu nit ki la ëpp sens ci àdduna mooy kiy protéger soxnaam Misi gu saf sàpp dara dugg ci yaramam dolli sa côté ñaari buñ dajé pour cat dugg ci digënté yi du yombati bu ñëwé rek japp ci natu yalla mo ak sanni ma baagi ma doxal bu ngok kon nak yeen ñu ñuy sétane gis ngeen ni tomb bi ni waxtane ëppoon na baña waxtane té modi ken bu gul bu serigne Moustapha si waxna angle yi nga xamni mën na ci galankor doomu adama yépp wax ni li koy may doole nak moy beut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax wax na ni al aynu haqqun kon nak jarul xeb serigne bi ndax cat ni muy mak. mak ba galankor ay mbiram noonu lay jàppe xalé ak budé euh, dina ko japp ban différence la am ak ni muy dale mak. xam nga xalé cat dina ko japp waye xalé li ëpp cat du ko gaaw japp dañ koy kar kar fas bu rëccee nuñ koy def kar maanaam jël leket wala ndab def ci ñam na ko tàllal ko ngir mu sëgg nga mën koo téye xale noonu lañ koy kare moo tax moom la ñu war njëkk aar moo tax boo déggee ñu naan la diw sàngam day xale la mais bu yàlla defal avenir ñu ne nan ko denc denc boobu mooy tax mag bi am gis-gis bu sori du mën a xam biddiwu xale bi ban mot de passe moo ci nekk même bu ko jëmee détruire du ko mën a laal donc moo tax xale dañ koy kar bu nga xasee kar ba noppi bu ko jàpp gut lañ njëkk a neer protesté mais bu nga xasee jàpp nag yii la koy arrivé maanaam xale bi fu mu toll day tiit fu mu toll day yuuxu rek di mer nga naan diw dafa dafa dafa rew dafa bëri jikko fu mu toll day énervé rek fekk moom xamutu sax lan moo koy metti ak lan moo koy def looleen nii man ngay teg yow mi waajuram alalam foo teg mu ñëw jël yóbbu nga naan diw de li muy def moo ko tey fekk yàlla xam ne dootul moomati donc liggéey amut yaramam mais dañ koo kar kar mooy xel mi ci moom lañu laal déplacé ko du neex a dégg li may wax nag mais pour nga dégg li may wax il faut nga sukkandiku ci biir xam-xamu kamaatara danga gis ci réewu senegal yi am na ci réew yoo xam ne tey bu nit tawatee ba dem fa man ci xam-xamu bi laa njëkk a fo mooy xam-xamu làq fit mais bi may xeex dëgg moom lay duma mais léegi yàllaar ci ma amul ku dul moom dina lu bari ci man parce que yooyu. da gis ci Sénégal ci réew yoo xam ne wala ci dëkk yoo xam ne maanaam nit dana feebar ñëw ñu jël fitu jaamu def ci fitu nit faye ko bor sama mbokk yi may wax sama mbokk service saafin dana xam ne may wax bu loolu bind naa sax téere à part woon ko teg mais ko bind ci à saaw muy picc bi yar picc dégg yi dinaa ko bind bés dina ñëw dinaa ko génne yem ndax yëpp génne naa ko ci laboratoire yi ba ci xam-xamu butéelu verre donc lépp ci laboratoire bi génn ko mu tax wéetaay rek moo ma yooyu nag moo tax bu xasee arrivé xale ba noppi nga gis xale am beneen melokaan bu bees yaram bi di tàng dootul lekk dootul nelawati doon jàng ne ci voie bu baax jékki-jékki mbiri déconné wu c'est-à-dire que duggul sa ruqu malakaan rek nga yedd sa bopp yedd bu jàllul nag jaala ci numéro téléphone yi ñu daa démarré la ko man xale ñëw na fi jàkkaarloog yaay ji ne ko nga baal ma ci terme bi bugguma laa gis yaay ji di jooy ne ko juruloo ma yaay ma di yaay di jooy ma ne ko mais kii du moom bu ma rëkkee junjungi bi dellu si nga xam ne du moom de mais ko bi mu mujj dellu si waat dimanche passé dafa sukk ci kanam yaay ji ne ko baal ma wax di jooy te xam-xam yooyu sax maa ngi ko jëlee ci gubu dugub rek laa koy liggéey gub du jar ay bind ayat gubu dugub rek laay jël xatax bi def ci jat pare na ci ndax xatax ku ko ku ko seex yàbbi ko moo tax buñu daan mboolaan ñoo la génneel xatax bi ndax xatax waru ko lekk xam nga li mboolaan maanaam bu dugub ñoree dañ koy def rocc booy dégg li may wax de lii ay xam-xamu cosaan la yoo xam ne ak lu jamono wëlbati ko wëlbati ko dañ ko war parce que ñi ko yoroon nekkatuñ fi kon waruñ ko bàyyi mu jàll te man yooyu laa gën a respecté tey ci xam-xamu tey moo tax boo xasee arrivé xale ban kar ko jaarale ci numéro téléphone yi rek danañ ci ut solution ci kàttan suñu borom sànni ma baagi ma doxal. mu ngoog téléspectateur yi ñuy seetaan ak internautes yi ma yëgal leen ni kenn bëggul bu Serigne Moustapha Sy liggéeyam seet moo ci jiitu. mu wutal koy bes nak di mardi mercredi jeudi ak samedi 11h ci suba ba midi waye bu la bes wala waxtu yoyu rawé bul jaxlé sa su né man nga def consultation ci ken bu gulbu serigne Moustapha si ngir am ci léral da ngeen di woté ci numéro ngeen di sen da ngeen di jot danañ leen taxawu inshallah allah bi cat li ñuy waxtané baat bu gatt la waye la ca la xasu bari na lol ndax chat dina jàpp nit àgg ci niveau bu nga xam ni euh, faj ko dootul yomb. xam nga rahmatullahi alayhi dañu toog ab jamono benn at boo xam ne mën na ñaari weer yoo xam ne xam-xamu cat rek ak takk la ma doon jàngal ak xam-xamu fàddin xamu li fàddin ah, ak xam-xamu jalawle fàddin mooy ku réer le gàtt wala jur. nga dem ci daaj buñ ko yewon jël boom gi ci bu suuf tak def jat kepp bool def sanxal loolu muy fàddin jalawle moy comme yi xew tay ci all yi nga xamne lampe takul gendarmerie sori la lenen sori la te nga yot get guddi jot nga jalawle ngir yalla ak say say bu mu dugg sa bir keur mais nekkul looy def tey soo ba nga bàyyi ko parce que ay moo la yooyu tëdd def waaye tamit ngir yàlla képp kuy dox guddi bañ lépp li boroom bëñ dagu la wala mu matt la nga ko ci ama amru mun a amran ama yasibuna inna allaha kaana sàngam ak sàngam yooyu bi ma koy jàngal bañ naa ko ba dama ci bindoon téere ji nga mu nekkul mu doon wax nii gis nga gis nga bii maa ngi ko bind en 2002 2022

xam-xam yi yu si bari sax jëfandikootuma ko danañ ci ñëwaat incha allah moo tax yooyu dafa am bu xasee am ba noppi nag solution yi mooy xam xamoo bi la ca daal ban la yow da wooteel ci numéro whatsapp bi rek 76 378 17 bu dul lii ma la wax nii moomu ma numéro yooyu 77 030 48 40 77 502 15 63 même ndaw yu ngay jot bu dee consultation ngay def jox la beneen numéro bu dul ñetti numéro yi ne la def ko ci bu ko ci que moom ma numéro soo ko defee doo ma jot en plus yàgg naa wax ne même bu dee rendez-vous urgence yi wàññi nañ ko même bu dee rendez-vous privé yi wàcc na. 117 000 francs la woon wàcce na nga 33 100 francs mais à part 20 heures ba 22 heures demi la fa la yem ngir yàlla ak yow mi ne kilifa te jamono jàpp la waxtu yooyu noonu mën nga ci profité waaye ndem sopp na yàlla suñu borom sànni ma baagi ma doxal jërëjëf mu ngoog kon nag yéen ñi ñuy seetaan kenn bëggul bu sëriñ Moustapha si lañu doon waxtaanal gannaaw bi mu indee ay leeral ci promotion bi nga xam ni tàmbali ay bés yi nu mu fas ko yene jeexal ci tabaski bi promotion bi nak li ci laxasu ba tax ken lol, bu serigne Moustapha si baaxi ko askan wi bari na lol mo waral mu def ci ay leral gannaaw bi ñu waxtane li ñuy wax cat moy lan ak lan mo koy sabab domi borom bammel bi indi na ci ay leral yu yaatu serigne bi xana rek ñu doyloon di loolu euh, ma taftal ci actualité ñu yëkëti jotaay bi waji day moy chef protocole bu Ousmane Sonko image bi nag jamono yi mi ngi wër ci réseaux sociaux yi ndax dafa daje ak ministre bi di Antoine Félix Diome ci benn xew-xew ñu nuyoonte nag laami mu bari ñu nga xam ne rafetluwuñu ko waaye am na ñu jàpp ni itam lii mooy image yu noo gisee ñaari déggin yooyu. xam nga yu bari ci actualité parfois danaa koy faral di suivre may xam li xew parfois su ma génnee ba am temps tamit am na ay ñoo xam ne ay sources yu leer lañ naa fay faral di jaar am information yu leer dama jàpp rek ne wax dëgg yàlla donc ñun sénégalais tamit dañoo war a mature ci yenn yi et puis jàpp naa ne nekk xel maanaam nekk xale warul tere tamit ñu jël suñu responsabilité ci yu bari ndax ki ma ko doon laaj wóoruma ndax li wax moo am de mais xam nga man moom dinaa faral di laaj parfois mu ma xew-xew bii mu ngi amee woon xombal benn événement ba ñu fa am gàmm xaw ma su ma te bàyyil xel ne bari na suñ mbokk artistes yoo xam ne ci réew mi fii xombal mooy seen cosaan wala mooy seen base man xam naa ci lu bari. te suñu mbokku jibi boobu mosuma gisante moom wax dëgg yàlla mais wax dëgg yàlla ku gis rek façon ak doxalinam yu mel ni su amee waru laa jaaxal lu tax waru laa jaaxal mooy système bi fi nekkoon te jógee fi maanaam liñ jotoon am lépp ci fausse arme ñu ko garde semaine bii ñu génn samedi journée la woon nettoyage waaw mën nga def journée nettoyage samedi dimanche lundi jotagut ñu bëgg a tourner nit ñi ci phase boobu dugale ci beneen phase foofu duñ ko nangu parce que manipulation yi nekk ñoom ñoom dañ ci toll nit ñi mature nañ quand même parce que lii du à la une mooy samedi ñu wàcc ci dëkk bi yëpp setal dëkk bi yëpp moo ko nekk faral ci vidéo boo xam ne sa waay du du ku war a xam nit ki xam jikko moo ko gën man li ma gëm mooy ñi ko filmé ñi ko génn ñëpp jubluwuñ ci lu dul déstabiliser nit ñi génn ci li nekkoon dugg ci leneen. ndaw ñi ñoy matir donc nga xamne ne projet bi len ousseyna Ousmane jaayoon ci yoon bobu la nek ba legui ni mbokk mi tonto jibi ñom ñu jàpp ko nañ ko jappé wor rek parce que batay deggo mu wax malgré nak kim doon saafonteeg ñu ko mere ci rom bari nañ man mënuma ag ci turam lu la yalla dogal ndax li fi jaar dafa bari tellement ka ak façon ayatu alquran yi mu doon génn yoo xam ne da nga xam ne lii sax du lu mu maîtriser xam na nitu daara ku dul nitu daara donc nag nit su fekkee maanaam daje nga moom ci événement c'est normal cest nekk ay adversaire su waxtu jotee mën ngeen nekk ay adversaire mais bu terrain bi jotee terrain bi la mais bu ngeen daje ci milieu wu jàmm mais da ngeen saafante nuyoo loolu aayul di donc pour man nit ñi nit ñi ñoo war a mature ci yéen ñi quand nag parce que gi nekkoon deux mille dix huit ak deux mille vingt deux deux ak génération bii nii donc dimension yi xaw na yéeg léegi sànni ma bàyyi ñu doxal. mu ngoog kon nag yéen ñi ñuy seetaan la ñu war a wax jeexul waaye waxtu waa jeex sëriñ bi nga tàggook askan wi ba beneen. mbàkk tey sargal Mawlaaya Aseex Seydi Mouhamadul Moustapha di ñaan yàlla suñu boroom ñuy wàcc le 10 juin yëpp yàlla yàlla jàppandal ñëpp am wér ñëpp am kattan ñëpp am xéwal ñëpp am mucc. yàlla dolli ko sàmm te aar Mawlaay Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha ku mu am nag yàlla mucc ku mu am yàlla raw ku mu am yàlla woomal wa ma saalayka alalaahi bi aatisin wa ndax daf ma wax wax bu doy waar mom ken bëggul mu ne man dama defe ne dafa am ñu ma yéenewul sëriñ Moustapha moo tax ñuy seet jamono bu nekk luñ ma sosale ndax ñu isolé ma ci sa xadara mu ni ma te tiitaruwu ma yàlla moo ma boole ak yow mu ni ma te kenn mënu ci dara nag lu mu defoon daw ci gàmmu gi def na ren lu ko ëpp ma bëgg ngeen bàyyil ma fi kenn bëggul bu ngeen xamul ci lu mu nekkit ngeen may ma man ma xam ci lu mu nekk waaw ndax ñemewul teg tànkam fu ma ko waxul walla bu koy def nag day fekk yëguma ko